sëriñ Hamar Samb sëriñ Hamar Samb mi ngi feeñ jamono ci atum 1862 ci dëkk bu ñuy wax Càmbeen Samb Càmbeen Samb nag mi ngi ci région de Louga ci suuf soosu nag di Njàmbur ci dëkk boobu nag la sëriñ Hamar Samb feeñee jamono ci atum 1862 di doomu sëriñ Moodu Anta Samb ak ku ñuy wax Soxna Anta Samb moom sëriñ Hamar Samb nag am na ñu bokkal ki di sëriñ Moodu Anta Samb ak Soxna Anta Samb ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Anta Samb ibnu Soxna Anta Samb Samb ak ku ñuy soxna ami sàmbu bintu soxna anta sàmbu bintu sëriñ moor anta sàmbu ak ku ñuy wax sëriñ maam balla ture anta sàmbu ibnu soxna anta sàmbu ibnu sëriñ moor anta sàmbu ak moom sëriñ xamar sàmbu ibnu soxna anta sàmbu ibnu sëriñ moor anta sàmbu kon ñett la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom muy ñeent moom sëriñ xamar sàmbu bi matee dal alxuraanul karim waajuram wa sëriñ moodu anta sàmbu ci dëkk bu ñuy wax jëmmooñ nëg la ko yóbbu woon ci sëriñ jëmmooñ ab du anta ñaan ginnaaw sëriñ jëmmooñ abdu anta ñaan mi sëriñ Xamar Sambu jaar ci wàllu njàngum alxuraan ba géeju fa nak ci wàllu njàngum alxuraan ginnaaw bi itam nag dem na ci sëriñ Moor Biraama Jaxate ngir wéyal nag lii di xam-xamam ginnaaw sëriñ Moor a Jaxate itam nag jaar na ci Baay Xaali ma Jaxate kala ci ñett ñii nag la sëriñ Xamar Sambu jaar nag ci wàllum njàng ba géeju lool nag ci alxuraanul karim nag ak lii di xam-xam mu bàyyi koo fa nag ñibbisi waat nag ci loxoy waajuram sëriñ Moodu Anta Sambu mi ci dëkk bi nag di Sàmbeen Sambu mu wéy nag des nag ci dëkk boobu mu cosaanoo feeñ fa jamono di Sàmbeen nekk itam nag ci ginnaaw waajuram wa di sëriñ Moodu Anta Sàmb ba ni sëriñ Touba Xaadim Rasuul taxawalee nag lii di yoonu muritim bi sëriñ Touba taxawalee yoonu murit kii di sëriñ Moodu Gay Jamooñ di doomu ndayu sëriñ Xamar Sàmb ñëw jaayante ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaadim nag nekku muritim ginnaaw bu sëriñ Moodu Gay Jamooñ delluwaatee nag ci suuf soosu nag di jamooñ kii di sëriñ Xamar Sàmb nag gisee nag doomu ndayam jooju nag di sëriñ Moodu Gay Jamooñ bi leen sëriñ Moodu Gay jam bàyyee nag ci tund woowu ñëwoon nag seet si ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ginnaaw bu mu dellusiwaatee nag ci tund woowu nag wala ci suuf soosu nag di njàmbur gis itim mu yor jikko joo xam ne nii itim bi mu leen fii bàyyi di fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam amu ko woon loola itim nag sëriñ Amar Samb bàyyi woon na xel nag doomu ndayam ji nag di sëriñ Modou Gaye Jamooñ ginnaaw bu mu waxtaaneeg doomu ndayam ji nag di sëriñ Modou Gaye Jamooñ ba sëriñ Modou Gaye Jamooñ wax ko nag melokaanu ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak di ko wax ne itim leer gi ñuy gis ci moom ak jikko ji ñuy gis ci moom kooku mu dajeel daal moo ko def ci moom di Xaadim Rasuul loola itim nag sëriñ Amar Samb déggewu ko woon ak nopp yu tëx ba tax na nag laaj na sëriñ Modou Gaye bi nag buy delluwaat ci xaadim rasool na ko yëgal ndax moom itam mu dem mën a jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool ba am nag lii sëriñ Moodu Gay jamooñ am ñu wax leen na nag sëriñ Moodu Gay jamooñ waajuram wu jigéen wii di soxna Masatu Sàmb ak waajuru jigéenu sëriñ Xaamar Sàmb ñoo bokk wenn waajuru góor ak waajuru jigéen muy soxna Masatu Sàmb mi meññ sëriñ Moodu Gay jamooñ ak soxna Anta Sàmb mi meññ sëriñ Xaamar Sàmb ñoom ñaar ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen ginnaaw nag bu doomu ndeyam ji nag di delluwaat nag ci loxoy ku baax ki sëriñ kii di sëriñ Amar Samb nag ànd na ak moom ngir jaayantee ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool lii mooy indi sëriñ Amar Samb ci ëttub Xaadim Rasool bi muy doomu ndayam ji nag di sëriñ Modou Gaye Jamooñ bi muy jaayantee ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool mi ngi fekk sëriñ Touba Xaadim Rasool nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci weer wii nag la di weeru Tamxarit sëriñ Touba Xaadim Rasool nag kii di sëriñ Amar Samb jaayantee moom nekk murid nag bu dëggal sëriñ Touba Xaadim Rasool laajoon na ko keroog bi mu jaayantee ak moom ko laaj naka nga tudd mu di ko wax ne Amar Samb laa tudd Seexul itam doon na ko laaj ana foo bàyyi ko mu di ko wax sàmbeen sàmb ginnaaw bu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nangulee sëriñ Xamar Sàmb ak jaayanteeg ba noppi da ko fee téye nag ab diir ginnaaw tam xarit gi mu jaayanteeg ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba noppi Seexul Xadiim téye na ko fi ab diir ba ci weeru koor wi fi njëkk a fekk sëriñ Xamar Sàmb sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëriñ Xamar Sàmb la waxoon mu nekkoon ilimaanu naaf ji ba nu ñu koree ginnaaw loolu itam Xaadimu Rasuul bàyyi woon na ko fi di ko binduloo ay kaamil ak di ko jàngaloo alxuraanul karim ginnaaw bu ñu koree nag la ko Xaadimu Rasuul yeewi wax ne dellul ci sa dëkkub cosaan boobu di sàmbeen sàmbu ci dëkk boobu nag la wéy nag nekk nag ba ni xaadim rasool demee ci géej gi ci atum 1895 bi sëriñ Tuubaa xaadim rasool gi nag mi ngi ci dëkk boobu nag mu feeñee jamono di càmbeen ñibbisee ci géej gi ci atum 1902 bi sëriñ Tuubaa xaadim rasool ñibbisee ci géej gi moom sëriñ Xamar Sàmb gisante na xaadim rasool ci dëkk bii nag di Lugaloo ginnaaw bu sëriñ Tuubaa xaadim rasool ñibbisee nag ci jaar na nag Ndakaaru dem Ndar géej ñëw nag ci dëkk bii nag di Lugaloo ci Lugaloo loo googu nag la sëriñ Xamar Samb gisee ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci bi mu nekkee ci kër Siise Mangoone sëriñ Siise Mangoone moomu nag ab xaadar la woon wala réew ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool la woon bi sëriñ Touba Xaadim Rasool jógee ci géej gi laataa muy ñëw sànnoo si jaaroo Luga loo ci kër googu di kër sëriñ ma Siise Ngoone foofu itam nag sëriñ Xamar Samb fekk na ko fa foofu la sëriñ Xamar Samb njëkki gisee waate Xaadim Rasool ginnaaw bu mu ñibbisee ci géej gi mu saafoon teg ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool sëriñ Touba Xaadim jógee Lougaloo ci kër sëriñ ma siise ngóone dem na itam ci dëkk bii ñu tudde bari jàmm siise ci kër sëriñ jullaa siise keroog bi xaadim rasool di jógee Lougaloo fasu sëriñ Amar Samb la waroon ngir mën a dem bari jàmm siise ginnaaw bu mu jógee bari jàmm siise itam ngir dem sànnoo sa itam fasu sëriñ Amar sambu la waroon fasu sëriñ Amar Samb wow ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool waroon diggante Lougaloo ba sànnoo si te ga nga xam ne nii moom la waree woon fas mi ngi ci loxoy njabootuk sëriñ Amar Samb man mii di Abdourahmane teg naa ci sama bët mi ngi ci kër sëriñ Samb gi nekk nag ci xar bu ndaw xaadim rësool moo ko joxoon ngir di ko wax ne jël ko di ko barkeeloo bisub keroog bi muy jóge Louga war a dem bari jàmmu siise booba mag ñu baree baree baree bari ci mag ñi seeni fas ma nga fa woon waaye xaadim rësool doon na xamal mag ñi di leen wax ne suñu boroom buur bi tabaaraka wa taala xamal na ma ne fasu xaamar laa war a war lool moo waral fasu sëriñ xaamar sàmb di ngelaw mu wa moo jële sëriñ tubaa xaadim rësool ci dëkk boobu di l loo yóbbu ko bari jàmmu siise ginnaaw bari jàmmu siise sànnoo si mbuupa bu xaadim rasool waxee ne nañ ko defaral fas wa laata sëriñ ibrahima mbuub moom di pare ca tegga xaadim rasool teg na loxoom ci mbaggum sëriñ ibrahima mbuub ngir war ci fasu sëriñ xaamar sàmb wa fasu sëriñ xaamar sàmb woowu nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool waroon am na ñu ne riddal laa la tuddoon am na ñu ne fàllu laa la tuddoon waaye daal li wér te wér daal sëriñ tubaa xaadim rasool fasu sëriñ xaamar sàmb moo ko jëlee ci dëkk bii nag di lugaloo yóbbu ko sànnoosi ca kër jeneen jàmbaaram ja di sëriñ siréloo ginnaaw bu seexul xaddim ñëwee nag ci dëkk bii nag di sànnoosi kii di sëriñ sëriñ Xamar Samb itam fekkaatoon na ko nag dëkk boobu nag di Sànnoosi sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul dafa jëlaatoon fas wa ak tegga jébbal ko sëriñ Xamar Samb di ko wax ne dee ko barkeeloo ba nëga ni nag tegga nag mi ngi ci njabootu sëriñ Xamar Samb sëriñ Xamar Samb itam fekkoon na ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul itam ci dëkk boobu nag di Sànnoosi ginnaaw bi nag la ko Xaadim Rasuul di laaj nag njabootam gi sëriñ Xamar Samb di ko wax ne am naa ñaari bant mooy ki la tuddee di sëriñ mbakke Samb ak ki ma faye Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke di sëriñ Moodu Samb Seexul Xaadim nag doon na sàkku nag ci sëriñ Xamar Samb mu yit ko ñaari ñaari jëmm yooyu sëriñ Amar Samb itam yónnee woon na ci dëkk boobu nag di càmbeen ngir ñu indil ko nag sëriñ Mbacke Samb ak kii di sëriñ Moodu Samb bu mu indilee ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ñaari doomam yooyu di sëriñ Mbacke Samb ak kii di Cheikh Mamadul Moustapha mbakke Samb sëriñ Touba Xaadim Rasul bu mu leen ñaanalee ba noppi dafa waxaat ne sëriñ Amar Samb jëlal ñaar ñi di Mbacke Samb ak kii di Moodu Moustapha Mbacke sambu mi nga def leen ne fàllullaahi sama moom ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke sama moom te nga jàngal sëriñ Amar Samb jaar na fekk ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool ginnaaw bu mu jógee ci géej gi sëriñ Touba Xaadim Rasool woore weeru koor wi ci dëkk boobu nag di Sànnoosi bu mu woree nag jógee na jaar fi mu jaar ba ñum ñëwee nag ci nganuk daaru salaam gi ginnaaw daaru salaam nag daaru marnaan moo am takk-takk ak tubaab bi nañu yóbbu war ko nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar googu nag kii di Samb dem na fa ziyaare ji ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool bi sëriñ Amar Samb nag di dem gànnaar di ziyaare ji ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool ku ñuy wax sëriñ Ibra Faati Faal Samb la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Guèye Samb ak ku ñuy wax sëriñ Mor Guèye Samb ak moom sëriñ Hamar Samb kon ñoom ñeent nag ñoom ñoo àndoon nag dem ziyaar ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk boobu nag di gànnaar wala ci réew moomu nag di gànnaar ginnaaw bu mu eggee gànnaar nag sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul téye woon na ko fa waaye toogu fa nag ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul jógee gànnaar ginnaaw bi na Xaadim Rasuul da koo yeewi nag ngir mu ñibbisi nag ci suuf sii nag di njàmbur rawatina ci dëkk bii nag di càmbeen ci dëkk boobu la toog nag ba ni Xaadim Rasuul jógee nag ci réew mi lu yéeme yéeme xew na fa ci diggante sëriñ Xamar Sàmb ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bu mu egsee gànnaar nag am na ku ñuy wax Moodu Ndaak Caam ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag la fekk si woon gànnaar nag doon ko ziyaara ji a ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bu Moodu Ndaak Caam mii ñëwee jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dane ko soo demee na nga laaj ci fere yi ku ñuy wax Xamar Sàmb te soo ko sa bopp ginnaaw bu sëriñ Moodu Ndaak Caam nag jógee nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñëw nag di laaj kan Samb ñu ne ko sëriñ Xamar Samb ma nga ne ginnaaw bu sëriñ Modou Ndak Caam ñëwee ba laaj nag kan mooy sëriñ Xamar Samb ñu di ko wax ne ma nga ne a jaayante laajal ku ñuy wax Xamar Samb te soo demee nag nga jox ko sa bopp lépp lum la digal man maa la ko digal lépp lum la tere man maa la ko tere sëriñ Xamar Samb nag doon wax Modou Ndak Caam est ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom moo la ko wax mu di ko wax ne Xaadim Rasuul moo ma ko wax sëriñ Xamar Samb nag àndoon nag wax ne Modou Ndak Thiam de lii la ma wax Xaadim Rasul di ko xamal ne sikkuwul man maa ko ko wax Modou Ndak Thiam mi nag mooy maamu Assane Thiam mi ci kër gi sëriñ Xamar Samb nag wéy des gànnaar nag ci ndigul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul ab diir bu néew Xaadim Rasul yeewi ko nag mu delsiwaat nag ci njàmbur ci dëkk boobu nag mu feeñe jamono di Sambeen Samb nag la xaar ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul jógee gànnaar ginnaaw gànnaar sëriñ Amar Samb itam daana fa fekki nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ngir itam di ko ziyaare ak di ko itam lii di ay addiyaam léeg-léeg itam addiye yi nga xam ne ni sëriñ Amar Samb daana ko yónnee ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Samb bokkoon na itam ci jàmbaar yi toppoon sëriñ Amar Samb nag la fa daa yónni ngir mu koy yóbbul ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ay addiyaam foofu itam ci cëyeen Jolof ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxaatoon na fa beneen taalibe itam na kii di sëriñ Amar Samb mu wéy nag topp nag ci ginnaaw Xaadim Rasuul ba ni Xaadim Rasuul nag jógee nag ci dëkk boobu nag itam nag ci dëkk bu sell bi nag di njaareem njaareem googu itam nag sëriñ Amar Samb daana fa fekk si ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim ba Xaadim Rasuul itam wutaloon na ko fa kër comme ni ko mag ñi amee di kër sëriñ Amar Samb ci njaareem njaareem googu itam ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul woote woon na fa ba tax na mag ñi itam daanañ bàyyi koo fa ñu nekk itam daa ñëw njaareem di gàmmu seek ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim ba Xaadim Rasuul moo wax bis sëriñ Amar Samb di ko wax ne man nga toog na ci dëkk boobu ma la dël nag di daaru xalimul xabiir ngir itam di fa gàmmoo njaareem googu itam Serigne Touba Xaadim Rasul joxe ndigal itam ngir mu dem sanc nag dëkk boobu nag di daaru Xalimul Xabiir comme nag ni mu ko joxe ndigal nag bépp mag nag bu toppoon Xaadim Rasul njaareem googu itam nag la jotee ngërëm ci ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul keroog bi mu jotee ngërëm nag ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul doon na wax Serigne Xamar Samb di ko wax ne mën ngaa dellu nag si sa dëkkub cosaan boobu di Sambeen Samb soo delloo nag ci wetu gànnaar ga nag boo fa doxee nag lu tollu moo la gën a jege foofu sëñ Amar Samb di xamal ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di ko wax ne dëkk bu ñuy wax Jaawar Sarde moomu fa a ko wax ne ëllëgi Jaawar Sarde yow laa koy laaj bisub kero nag bi muy dem nag ci dëkk boobu nag di na ko ay ndénkaane di ko wax daanu Xalimul Xabiir ba toog fa bëggub taalibe nag bum la tax a xëy bëggub taalibe itim bum la tax a gontu Seexul Xaadim mi ngi doon wax keroog nag sëriñ Amar Samb ba tey itam di ko wax ne dëkk boobu nag di daaru Xalimul Xabiir sabir lu la fa fekk téyeel lu fa ñëw itam téyeel seexul xadim di ko xamal ne ba tey itam dëkk boobu mën a dël di daaru xalimul xabir buggub xumbaay itam bu mu la tax a gental ragal wéetaay itam bu mu la tax a gental ndigal loolu ko xaadim rasool joxoon itam sëriñ xamar sàmb itam nag déggiwu ko woon ak nopp tëx sàmm na ko itam ba ni mu génnee àdduna ci atum 1939 sëriñ tuubaa xaadim rasool itam mas na wax sëriñ xamar sàmb ci njaareem di ko wax ne ni nga ma bëggee nii te fonke ma ko yowmal xiyaam itim tax na lu takkoo takkoo takku itim nag séq na ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ndax moom sëriñ Amar Samb bi mu jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ci dëkk bu sell bii nag di Touba xaadim rasool itim jiitaloo woon na ko fi weeru kooru yàlla woo xam ne nii moom moo nekkoon imaamu naaf bi ba tey itim dem na gànnaar fekki fa ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool itim jébbaloon na ko fa ab taalibe di sëriñ Moodu Ndaak Caam ba tey itim bi ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool jógee nag ci réew mii nag di Gabon ba ñëw Ndakaaru dem Ndar géej dem Lugaloo fas wi nga xam ne ni Amar Samb moo ko moomoon moom la xaadim rasool war diggante Louga loo ba sànnoosi ba tax na fas woowu xaadim rasool ware woon Louga loo ba sànnoosi tegg ma nga ak njabootug sëriñ Amar Samb ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool moo ko joxoon ngir di ko wax ne nga barkeeloo ko ku dem gaar bu ndaw daa ko gis ba tey itam ci diggante sëriñ Amar Samb ak ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool xaadim rasool nee na ko ci njaareem ni nga ma fonke te bëgge ma ko yow mal bu ma yónent bi cëree danaa la cër kon sëriñ Amar Samb ku bari woon wàcc waay la ci ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool ba na itam bokk na ki ñi njëkk a tudde cheikh mamadul moustapha mbàkke doom ki mu tudde cheikh mamadul moustapha mbàkke di sëriñ moodu mbàkke sàmm ci la feeñ jamono mook cheikh mamadul bachir moom xaadim rasool ñoo maase sëriñ moodu mbàkke sàmm moom sax toog na ñaareelu xalifa sëriñ xamar sàmb sëriñ xamar sàmb nag ko amoon relation la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ñu mën cee ràññe sëriñ daaru hasan njaay soppeeb sëriñ xamar sàmb la woon wóllëreem ba tax na ñoom ñaar ñu jaxasoo woon lañ la boo demee ci njabootuk sëriñ siriloo Sanusi daa fa fekk sëti sëriñ Xamar Samb boo ñëwee itam ci njabootuk sëriñ Xamar Samb daa fa fekk sëti sëriñ siriloo Sanusi Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bokkoon itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim moom itam soppeeb sëriñ Xamar Samb la woon ba tax na kii di sëriñ Xamar Samb tudde na ko doom ndax sëriñ Ibrahima Sarr Samb mi ngi fi woon kii di sëriñ Xamar Samb la ko tudde woon Cheikh Ahmadou Ndumbe Mbàkke ku jaxasoo woon ak sëriñ Xamar Samb la sëriñ Balla la woon ku jaxasoo Samb la kiri sëriñ Amar Samb tudde woon na doom nag sëriñ Ahmadou Dieng Balla Faali sëriñ Habibu Dieng Samb mi ngi fi woon sëriñ Amar Samb sëriñ Balla Faali la woon bi mu génnee àdduna ci atum 1939 moom sëriñ Amar Samb Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ma wax soppeem ba sëriñ Mbàkke Buso ngir mu taxawu ko jullee ko sëriñ Moodu Gay Jamooñ moom itam ku soppoon sëriñ Amar Samb la woon ba tax na li indi sëriñ Amar Samb ci ëttub ak sëriñ Amar Samb ñoom ñaar seen ñaari waajur yu jigéen yi ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen képp ku mu bokk loon ëttub xaadim rasool bi sa wëllëre la woon sa soppee la woon njabootu xaadim rasool gi moo xam cheikh mamadul moustapha mbàkke ba ci cheikh mourtada mbàkke ñoom ñëpp itam soppee sëriñ mar Samb lañ woon ndax kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ Amar Samb tudde woon na ko doom sëriñ Moodu mbàkke Samb mi ngi fi woon te sëriñ Amar Samb cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu xaadim rasool la ko tudde woon mu bokk ci turandoo cheikh moodu moustapha mbàkke itam yi atum 1895 la sëriñ Moodu Mbàkke Sàmb feeñ Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul wala réew sëriñ Xaamar Sàmb la woon ba na itam njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke ñi ngi ci kër googu di kër sëriñ Xaamar Sàmb soxna Moomi Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke sëriñ Mouhamadou Sàmb moom sëriñ Xaamar Sàmb lañ ko jébbaloon Cheikh Mouhamadoul Basir ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom itam wala sëriñ Xaamar Sàmb la woon kii di sëriñ Xaamar Sàmb itam tudde na ko doom ganeen njabootu Xaadim Rasuul gi itam noonu nga soppi woon sëriñ Xaamar Sàmb sëriñ Xaamar Sàmb itam itam noonu la meloon ci yow noonu mu amee ci njabootu xaadim rasul gu góor gi itam noonu la amee ci njabootu xaadim rasul gu jigéen gi ñoom ñëpp itam wóllërey sëriñ Xaamar Samb lañ woon mu wéy nag des nag moom sëriñ Xaamar Samb ci dëkk boobu ko sëriñ Tuubaa dëloon di daaru xalimul xabiir ñu gën koo xam ci sàmbeen Samb tam nekk itam ci suuf soosu nag di njàmbur di yar di jàng ak di jàngale comme kat ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee ba tax na itam sanc na yeneen dëkk nag yu bokkut ak daaru xalimul xabiir googu ñu mën cee ràññee dëkk bu ñuy wax saa kolonial sëriñ Xaamar Samb itam moo ko sanc keroog buñ koy sànc taalibeem bii ñuy wax sëriñ Abdul Karim Samb bokkoon na itam ci jëwriñ yam fa dëeloon wala ci jëwriñ yam àndaloon di sànc dëkk boobu nag di saa colonial sëriñ Amar Samb itam sànc na dëkk bu ñuy wax Ngorba Ngorba itam nag mi ci wetu dëkk bii nag di diiwaan Silla Ngorba nag biñ koy sànc taalibeem bii ñuy wax sëriñ Moodu Samb bokkoon na itam ci jëwriñ yi nga xam ne nii ñoom ñoo fa nekkoon wala àndoon nañ ci keroog bi mu koy sànc ci suuf sii nag di na fa dëkk bu ñuy wax Mbalka ak yeneen nag yeneen yi dëkk nag yu sëriñ Amar Samb nag di yar di jàng ak di jàngale ni ko yaakaar ngir xaadim rasool ba nim fi bàyyi ci atum 1939 dëkk bu sell bi itam nag di Touba sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mi nekkoon juróomeelu xalifa xaadim rasool joxoon na njabootuk sëriñ Hamar Samb itam suuf su yaatu nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba suuf sa nag moo tolloog fii nag ci yoonu Daaru Muxti wi tolloog nag fi chinois yi nekk ñu tudde ko ina Chine suuf soosu nag njabootuk sëriñ Hamar Samb am foofu ñu mu ko 1939 nag kam yaakaaroon di Serigne Touba Xaadim Rasool nag génn na àdduna ci atum 1927 mu fab lépp nag jébbal taawub Xaadim Rasool ba di Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ibnu Xaadim Rasool di ko xoolee Xaadim Rasool mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu ko Xaadim Rasool dëroon di Daaru Xalimul Xabiir nekk itam nag ci suuf si di njàmbur wéy googu mu nekkoon nag ci Daaru Xalimul Xabiir tax na itam nag mu defar ay góor yàlla yu takkoo takku ñu mën caa ràññee ku Sarr man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Samb man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Modou Sarr Ngorba ak ñeneen ak ñeneeni góor yàlla yum àndaloon waaye nag góor yàlla yi ñu leen limal nag góor yàlla nag lañ woon yu taqoo woon nag kii di sëriñ Hamar Samb ci biir góor yàlla yooyu taqoo woon nag sëriñ Hamar Samb kii di sëriñ Mokhtar Seck ku toppoon sëriñ Hamar Samb la te woon ko ànd naag nag kii di sëriñ Hamar Samb lu tolloog fanweeri at yàlla ba tax na na ay way nag ci kooku mu yaakaaroon di sëriñ Hamar Samb way yi nag mi ngi ko def nag ci kàllaamay arab soo demee nag ci Hamar Samb ni mu meloon ni mu tabe woon ak ni mu toppe woon xaadim rasool ak kooku daal ni mu nekkee woon royukaay ci askan wi rawatina nag ci yoon wi mu bokk nag dex yoonu xaadim rasool wi ñu teewlu way yu ko sëriñ Muudu Moxtaar Sekk defal moom sëriñ Hamar Samb ngir di ko tagg nag ci ay jikkoom ak melokaanam ñu teewlu ko yaa malja lam yarar rauna charwaaka yaa man tasabbu ala rajika jadwaaka alayka nahmadu hamdal hamidina maan liman lana dëhra cheikh alfadli abdaaka uniltama ما يحمد الدارين حاويه يا من أزال غموم الدهر ذكراك جزاك خيرا يعم الأهل خاطبة أولاك مجدا بصف العمر مولاك جزاك عنا إله العرش أفضل ما يجزي الكرام وفينا الدهر أبقاك قد قدتنا للكريم البر مرحمة مزهسها الضير عنا حين نلقاك وجهت لله من يتلوك حاميه عما سوى الله ليتي عند قرباك لقد تأمل جعلت حقب الكل منصرفا إلى أمور تصفي حال حقباك رفعت في الله شمسا في بروج رضا لا يبرحا عوض مأوى المن مأواك رب ارحمنا بزلق زيد عامرنا مطابقا اسمه فينا فقل هاك ginnaaw way yooyu ko sëriñ Modou Mokhtar Seck defal nag moom sëriñ Hamar Samb di ñu wax jikkoom ak ay melokaanam loolu tim taxaa na kii di sëriñ Modou Mokhtar Seck tim defaan na yeneen way tim ci sëriñ Hamar Samb ci kàllaama gi nag di kàllaamay arab ba tey tim mag ñuy wax jikkoy sëriñ Hamar Amar Samb ci ni mu mel ci ak ak lii ak yéeme gu mu yéeme ak melokaan gu mu meloon nag way yi ko sëriñ Moodu Maxtaar Sekk defalaati tim ci kàllaama gi nag di kàllaamay arab cheikhul jamilu ya amar ya man lahu wajhun munirun kal qamar araaka tabsutu li kulli man yamur wajhaka ya xayra sawaadini athar ya taabian cheikh alcheyuqi walchigar wa taabian sunnata xayri zal bachar wa faacilan kulla alladi bihi amar cheikhu shuyuqi fi lqurani wal athar fuzta bi nayli kulli xaajin wa watar wa fuqta kulli waaridin wa man sadar mu wéy nag yor jikko joo xam ne nii ñu ko yor bariwul moom sëriñ Amar Samb toppitim na ci ginnaaw ka mu yaakaar di ko xoole xaadim rasul di cheikh mamadul moustapha mbàkke ba ni mu génnee àdduna ci atum 1939 ci dëkk boobu mu goroon sancoon ko ci ndigalul xaadim rasul di daaru xalimul xabir nekk tim nag ci suuf si nag di njàmbur sëriñ Amar Samb nag mi ngi génn àdduna bisub altene ñaar fukki fan ak ñett nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1358 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ñett ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1358 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 12 juin 1939 lundi du 12 juin 1939 ci dëkk boobu mu goroon nag ci ndigalul xaadim rasool di daaru xalimul xabir te ñu gën koo xam nag ci càmbeen sàmb ci dëkk boobu nag la génnee àdduna ci atum 1939 ñu yanoo ko fa nag ci bisub altene boobu ngir fas yéene koo indi nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ginnaaw buñ ko yenoo ci daaru xalimul xabir ba ci dëkk bii nag di Ngaay sooy jub Ngaay jóge daaru xalimul xabir di sàmbeen sàmb laataa ngay dugg Ngaay nag am na gennuk daqaar gu fa nekk daqaar ga sax ba nëgëni mang fa ginnaaw buñ ko yanoo ci daaru xalimul xabir goog di sàmbeen sàmb foofu lañ tegoon di xaar oreel bi nga xam ne ni moo war a jóge foofu nag ngir war a dem nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba mu mën a indi kii di sëriñ Hamar Samb ginnaaw buñ ko indee ci bëccëgug altine googo Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mi nekkoon xalifa Xaadim Rasul moo sàkku ci njabootu sëriñ Hamar Samb di leen wax ne nañ ko fanaanal ba suba nag ci talaata ji sëriñ Hamar Samb ñi ngi ko jébbal boroomam bisub talaata ci yoor yoor ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atu 1358 ci gàddaay gi bisub talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi nag 1958 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 13 juin ci teewaayu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak njabootu Xaadimu Rasuul gi fi nekkoon nag jamono jooju Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo woolu Serigne Mbacke Bousso ngir mu taxawu nag kii di Serigne Hamar Samb jullee ko ñu jébbal ko boroomam ci armeel yu mag yi ginnaaw bu ñu dencee Serigne Hamar Samb ci yor yorub talaata boobu di fukki fan ñett ci mois de juin ci atu 1939 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo sàkku ci njabootu ci daarul xuddoos ginnaaw bu njaboot gi sole seenu dàll ñëw ci daaru xuddoos fekk fa kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke di wax njabootu sëriñ xaamar sàmb di leen wax ne seen waajur wa jàmbaar la woon ku dajale ngërëm yu takkoo takkoo takku la itim muy ngërëmul buur bi tabaraka wa taala ngërëmul yonent bi ngën gim bi ndéef salallaahu taala alayhi wa sallam ngërëmul kam doon liggéeyal di xaadim rasul ak sama ngërëm man mii di cheikh mamadul moustapha mbàkke bu njaboot gi jógee nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke wutoon nañ nag li ñu tudde ab séngal fa séene woon koo teg mu tiim barabub sëriñ Xamar Samb ba ginnaaw bu ko cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke yëgee mi ngi doon xamal njabootu sëriñ Xamar Samb di leen wax ne séngel boobu tiim sëriñ Xamar Samb nañ ko fa jëlee ndax kii di sëriñ Xamar Samb fa mu nekk naaj jote wu fa tàngoor jote wu fa kon nag barab bi nañ fexe ba bu ko dara tiim loolu moo waral barabu sëriñ Xamar Samb ba nëga ni nag mbaar tiimu ko kenn tabaxu ko ndax kàdduy cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke yooyu ginnaaw seede yu am solo yooyu cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag def ci moom sëtam bi nag di Hamdi Moustapha Samb kat ab marsiya di ñu wax nag jikkooy sëriñ Amar Samb nim meloon nag ci topp ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool ak sëriñ Amar Samb itam nim tabe woon ak nim nangoo woon a joxe kàddu yi yaatu daal la sëriñ Hamdi Moustapha Samb def ci moom ngir di ñu wax nag jikkooy maamam jooju nag di sëriñ Amar Samb ñu teewlu ko naa jéem a jokk a te jàpp xel mi daggiwaat te jéem a bind xamlewaat kan moo di cheikhi amar yi jaamu boroomam la bu wér te sax ci jaamu ko door yoonu sayyidil bashar kii moo di cheikhi amar yi jëloon jëmmam ak lu mu am jébbal ko cheikh bamba na am ba am ci moom ngën ji ngërëm nan roy ci cheikhi amar yi ku sopp cheikh la woon sopp gu wér ji wax du neen te la jadd mukk yoon nan ngoy ci cheikhi amar yi bamba moo ko tërbiya cheikh bamba moo ko tarqiya bamba moo tasfiya moo tax mu doyloo amar yi Cheikh jox na koy ngëneel yoo xam ne yi deesu ko xam ne Moustapha waneel kan moo di Cheikh fu ma yonentu bi dugal ëllëg danaa la dugal ndax ning ma soppe umpewul la Bamba wax Cheikh amar yi ma nettali li nga xam ne kii ku ci moom faw nga jiitu say moroom roy leena roy ci amar yi ak ngor gu mat gu dëgg lal ak dëddu adduna ajal ak maandu ak sax ci jubal sa jiyatun li amir aw lam miñ la du dugg lum amulu yoon du jëw du jëwloo yit keneen lii mooy melow Cheikh Amary manoon na gan mani dëkkam amoon na xam-xam ak xikam te sàmm sàmm oy cëram lus naa bi Cheikh Amary ab tab la woon bu daa joxe te sell ab xol du naxe waxin wu teey la daa waxe jaaraama Cheikh Amary te lewetoon ba mel na xar te wex itam lool ne xatar ci képp koy jalgati ngir jub mooy ju koy Cheikh Amary lépp lu ñuy tagge ku mi ngi ci bul jiixi jaax te lii ma wax du waxi naa baax dir na ku xam Cheikh Amar yi mooy nan ci moom te doy nanu ci fii nekk ak fanu jëmaat ci laaxira nanu delloo njukkal Cheikh Amar ko buur bi yàlla fay ngën ji ngërëm ak ngën ji fay taag njaboo tamit mu may leen ay ngërëm bi amiri salli wa salliman ala sayidina babil ula watil xasida tax balaa ci darajay Cheikh Amar yi ginnaaw marché boobu nga xam ne ni moom la ko sëtam defal di Hamdi Moustapha Samb di ñu wax jikkoy maamam ak maamam itam nim meloon ci topp ku Amar Samb kam faya xaadim rasuul di sëriñ Mbàkke Samb moo ko wuutu ci atum 1939 ba atum 1940 sëriñ Mbàkke Samb wujju suñu boroom ñaareelu xalifa sëriñ Amar Samb muy kam faya cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu xaadim rasuul moo ko wuutu ci 1940 ba atum 1994 ñetteelu xalifa sëriñ Amar Samb mooy ku ñuy wax sëriñ Moxtaar Samb moo ko wuutu ci atum 1994 ba atum 1997 ñeenteelu xalifa sëriñ Amar Samb mooy ku ñuy wax sëriñ Abdou Khader Samb moo ko wuutu ci atum 1997 ba ci l'an 2001 li ñu tudde nag doomu sëriñ Amar Samb yu góor yi jeex tàkk nag ci kaw suufa sët yi nag tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk a wuutu maamam mooy ku ñuy wax sëriñ Ceerno Samb ibnu sëriñ Moodu Samb mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Amar Samb moo ko wuutu ci atum 2001 ba 2004 ñaareelu sët bi wuutu maamam di juróom benneelu xalifa sëriñ Amar Samb mooy ku ñuy wax sëriñ Xaadim Samb ibnu sëriñ Moodu Samb ibnu sëriñ Amar Samb Samb moo fi nekk 2007 ba 2008 juróom-ñaareelu xalifa sëriñ Hamar Samb di ñetteelu sët nag bu wuutu maamam mooy sëriñ Cheikh Faty Mor moo fi toog nag 2008 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ Cheikh Faty Mor Samb mi ak mbooleem njabootu sëriñ Hamar Samb gi suñ borom guddal seenu fant wéral seeni cër te moom mii nag suñ borom yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Hamar Samb bi ndax sag la ci njabootu sëriñ Hamar Samb gi sëriñ Hamar Samb nag am na bis nag buñ koy fàttaliku muy li ñu tudde di gàmm taala alayhi wa sallam sëriñ Touba xaadim rasul daana ko màggal nag ci njaareem daana wax mag ñi itam di ko màggal kii di sëriñ Xaamar Samb nag daana bàyyi ko daaru xalimul xabir di sàmbeen sàmb di ñëw njaareem nag di fekk si ku baax ki sëriñ Touba seexul xadim ngir ñuy fàttaliku feeñu jamono ngën gi mbindeef sëriñ Touba xaadim rasul nag sàkk woon na ci sëriñ Xaamar Samb mu des nag ci dëkk boobu nag di daaru xalimul xabir bu bisum ngën gi mbindeef wa sallam bi delsee di gàmm mu toog foofu nag di ko màggal bis boobu nag sëriñ Xaamar Samb itam daana ko wéel nag ci baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu mu fi bàyyi koo nag mbooleem njaboot gi nag itim nag wéyal nañ bis boobu nag di fàttaliku nag feeñu ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ci ndigalul Xaadim Rasuul kon nag benn bis boobu rek la njabootu sëriñ Amar Samb am nag di ko màggal muy bisub feeñu ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam jamono di gàmmu ci ndigalul nag ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko joxoon seen waajur wa sëriñ Amar Samb sëriñ Amar Samb itam dundal na bis bi ba ni mu fi bàyyi ko ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itim nag njaboot gi ko wuutu seen ndigalul waajur moom itam nag mu jëlee ko woon ci ki mu yaakaar di xaadim rasuul ñuy ñaan ci jàmbaar ji toppoon xaadim rasuul di sëriñ Xamar Samb ba jot ngërëm ci xaadim rasuul itam dëloon ko ci dëkk bu ñuy wax Daaru Xalimul Xabir ñu gën koo xam ci Sambeen Samb nekk itam suuf sii di njàmbur te keroog bi mu génnee àdduna ci atum 1939 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mi wuutu woon xaadim rasuul doon xamal njabootuk sëriñ Xamar Samb gi di leen yu mu làq itam yàlla na suñ yokk ay leeram te taas ñu ci teg loxo